الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مبكي جلدي كان هناك ku من جيس دي يك دي جاكار لوك jafe-jafe yi nga xam ne jullit yi ñu ngi koy dund ci béréb yu bari muy ay défi yoo xam ne seeni noon ñoo koy teg ci seeni kanam di leen toroxal di doyadal seen bërëb yi gën a tedd xew-xew yu mel noonu nag dafay jaadu ci jullit bi jamono yu nekk muy dellu ci boroomam ci ñaan xettali ko ci yàlla mi nga xam ne moo mën a xettalee kon xutba bii dafay jokk ci xutba bi weesu woon ci lu jëm ci bonug yahud yéeg nañuy def suñ mbokki jullit yi fa ñu nekk nit war naa laaj ban taxawaay la ci mbokk jullit man ñu xam ne man man bu rëy rëy la ci jullit man mu di mbir mu am solo moo xam ne ñu bari dañ ko sàggane te muy ngànnaayul jullit muy ñaan danañ jéem romb ci lenn ci doxaliini salafu saalix ñi nga xam ne dañoo jógoon di jihaad fi sabilillah ay buntam ubbi ci seen kanam ne ñooña day mosuñoo jóg dugg ci benn jaamaarloo lu dul dafa fekk ñaan ak xettaliku mooy seen ngànnaay lañ jiital mosuñoo mën a sukkandiku mukk ci ngànnaayul matériel kese seen gànnaay la gën a rëy te gën a màgg mooy dellu ci seen boroom toroxlu ci kanamam ñaan ko kuy xool nag jullit yi li ñu dund tey sa xol du mën a neex ci seen doxaliin ndax doyadal goo xam ne ñu bari doyadal nañ ko ñaan mel ni ñaan daal dafa dem ba mu yàgg mu doon loo xam nit ñi dañ koy xool bëtub lu amul njariñ wala loo xam ne dafa amatul efficacité ba mu amoon ndax musiba yu bari yoo xam ne ñu ngi koy gis muy wàcc ci jullit ñi te ak jógeem fa di doon lu jafe lool léeg-léeg sax am na ci ñoo xam ne seytaane dana leen jekku ba suñ gisee kuy woote ci ñaanal ay mbokki jullit ñi jàpp ne loola daal ak doye di la wala ak suufe waaye nit ki war naa mën a def lu gën a rëy loola la gën a rëy loola mooy lan mooy ñu ci bari jàpp nañ ne su musiba dee dal ci sa bokki jullit daal ni nga war a def mooy génn ca mbedd ma yëgle ko doxal lu nuroog ay marche yoo xam ne mbooloo yi da cay ànd ñu ànd yuuxu wax suñ ko defee ba mu jeex daal di jàpp ne jaan wàcc na kenn ku nekk delluwaat sa kër daal di toog kooku ci cat yi nga xam ne dafa dugg jullit yi ci la bokk te seytaane jekkoo leen ko ba tax ñu ci bare bari bàyyi ñaan gannaaw te ñooñu xamuñu ne salafu saalex ña jiitu woon bunt yi ubbiku ci seen kanam ñuy jaamaarloog seeni noon ngañaay yu rëy yiñ amoon amewuñ ko lu dul ci dellu ci seen borom ak ñaan loola rek moo leen ko mën a jox te misaal yi ñuy joxe ci kanam dana ko wone dana nu won it lan moonu wóotale ak ñi nga xam ne ñooy ñu jiitu woon ci bunt boobu ñaan nag waxuñu itam ne buñ ko waxee nit ki na doyloo ñaan kese yem ca waaye jullit bi ci boppam dafa war a def lépp loo xam ne lu ko boroomam sant la bu fekkee ne dafa war a préparer boppam ci loo xam ne itteem la du toog rek feranklaayu ne loolu damay ñaan yàlla mu am waaye day def lam ca man ba fa kem kàttanam mën a yem mu boole ca ak ñaanam boroomam nangu ko waaye kat duñ la wax ne soo ñaanee rek lépp doy kon day mel ne ndonga mën naa ñëw maanaam koo xam ne day jàng mu ne ah man de nit ñaa ngi xëy di jàngi ca école ba waaye su ma indee samay téere dalam rek teg teg du ma ci am soxla suñ demee ba waxtu examen jotee rek ma tàllal samay loxo ñaan déedéet waxi waxi wuñ foofu fi ñuy waxe mooy nit ki na def li mu mën lépp ba fa kàttanam yam mu boole ko ak ñaan te xam ni ñaan ga nag mooy tax suñu borom tabaraka wa taala barkeel ay yëngatoom moo tax muy nangu la muy def lu bare bari ci nun tey ci pexe seytaan yi bokk na ci moo di jamono yi nga xam ne musiba yaa ngi wàcc ci mbokki jullit yi ñu bari seen itte ju mag fañ koy féetale mooy ca gannaaw télévision yaag jumtuwaay ya nga xam ne ca la ñuy tuxale xabaar ya di ca jeexale seeni guddi ak seeni bëccëg donte sax nag seeti wala déglu xabaar yi sa mbokkum jullit lu baax la ndax day wone ne loola nit ka am na ca yitte waaye nag jeexal ci sa waxtu moom baaxut jeexal sa waxtu ca loola bu muy wàcc rek ci sa mbokki jullit nga continuer rek di ko seetaan te defoo dara ñaanoo defoo leneen ma ne loolu dafay dolli njàqare rek dafay dolli naqaru xol waaye amul leneen lu muy jëriñ kon mbokki jullit yi borom bi tabaraka wa taala ŋàññi na ay nit ñoo xam ne wàcce na ci ñoom musiba waaye taxul ñu dellu ci seen borom ñaan ko taxul ñu dellu ci seen borom toroxlu borom bi nee na walaqad arsalna ila umamin min qablika fa axadnaahum bilbasaai wa dara ne ñi woon am na ay xeet yoo xam ne wàcce nañ ko woon ci ñoom ay musiba yu mag a mag a mag a mag laallahum yatadarraun ndaxte lañ ci jublu mooy musiba yooyu su wàccee amaana mën nañoo toroxlu dellu ci seen borom mu ne waaye ñooñu bu musiba dikkee fekk na seeni xol wow seeni xol wow seen xel du nekk sax ci dellu ci seen borom wa zayyana lahum shaytaanu nee na shaytaane rafetalal leen maakaanu yaamaloon yeneen jëf ya ñuy jëf te bokkut ak dellu ci seen borom ak ñaan nee yooyu seytaane moo leen ko rafetal ba la leen dal dal leen kon su fekkee ne xool nan ñi weesu woon ci ay tomb yu néew ka ci jiitu wala kër yi tàmbalee mooy taalut ak i soldaaram ba ñu génnee wala jàkkaarloog ponkal mu toll ne jaalut ak ñoom àndal ñii di kuréelub yàlla ñii di noonu yàlla mënoon nañoo doyloo rek ne nun kat noo ànd ak yàlla kon jarut sax nuy def dara noo war a gañe waaye teewul bi ñu demee ba jaamaarloo lan lañu wax rabbana afriq alayna sabran yow sunu borom yàlla na nga sotti ci sunuy xol ak muñ wa sabbit aqdaamana te nga dëgëral sunuy tànk wansurna ala alqawmi alkafirin te nga dimbali nu ci kaw yéefar yi googu ñaan lañ ñaan biñ jaamaarloog seenum noon borom bi nee na fa hazamuhum bi idnillah ñu gañe leen ci ndigalul sun borom tabaraka wa taala wa qatala daawudu jaalut ci biir loola ci la daawud reye jaalut omar ibn alxataab radiallahu taala anhu mi ngi ñuy nettali ci xadisu muslim ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam bisu badar te bi mu demee ba jàkkaarloog yéefar yi li mu yéefar yi nekk mille personnes junni te jullit yi mëtuñu lu dul ñetti téeméer ak fukk ak ñeent wala fukk ak juróom-ñeent yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jublu xibla yëkkati ay loxoom di ñaan wax ne sunu boroom yal na nga ma mottali li nga ma digoon sunu boroom mbooloo si taxaw fii day buñ ko alagee bis ne ke tey kon ci kaw suuf kenn duutu la jaamu tàmbal ay loxoom di ñaan ba làmbaay gi mu tegoon ci gannaawam wadd rot abu bakarin siddiq radiallahu taala jóge ko gannaaw fab làmbaay gi tegaat ca mbagg ya daal di koy laxasu ne ko ah yow yonent yàlla bi doy na li ngay waxanteeg sa borom doy na yàlla dana mott li lim la digoon fa saa sa borom bi tabaraka wa taala wàcce ne yéen a ngay xettaliku seen boroom seen boroom nangu na seenu ñaan wàcce na junni malaayika yu àndandoo kon noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dundee ci mboolem jaamaarloo yi nga xam ne doon na ko def saxaaba yi ñëw gannaawam itam noonu rek lañ doon def Qutaybatu ibnu Muslim bi nga xamee ne génn na te moo jiite woon xalasaan ña ñuy tudde atraak yi ñu génn jaamaarloog ñoom doon ay yéefar fas yéene xeex ak ñoom saa buñ masaan jóg rek ku doon njiitu njiitul jullit yi li ngay jëkk a xalaat mooy ana ñan ñooy ñaan dafa yónnee ne dem leen xool jàkka ja ba xam kenn nga fa am déet ñu dem xool jàkka ja ne ko ah foofa day imaam al imaam muhammad ibnu waasi moom rek lañ fa fekk ña ko séen muy ñaan ba tàllal baaraam ba mu ne li naa ah, baaraam boobee day moom a gënal téeméeri junni jaasi yu ñaw ak téeméeri junni xale yu góor yu toll ci seen ay soldaar yu toll ci seen kàttan kon xam nañ ñaan googu ban place lañ ko tegoon ñoom kon jullit bi ngannaayam lu mag li mooy ñaan ku ñu wax asad ibn abdullah al moo jiite woon xorasaan ci jamonoom ba muy xeex ak perse yi daf doon def saa bu jaamaarloog noon yi li muy jëkk a wax mooy man day jàngoon naa ne nit ki su tegee ab jëm ci suuf foofu la ñuy gën a nangoo ñaanam nee na day daal di wàcc fasam wàcc waruwaayam teg ab jëm ci suuf daldi ne ñaan leen yàlla te sujootal seen boroom te sellal seenu ñaan nee na fu mu ñaan rek soldaar yi ànd ak moom sujoot ñaan bu ñu yëkkatee seeni jë ñoom ñépp duñ sikki sàkk ci ne boobu bis moom ñooy gañe